yoo xamante ni quand même dina retardé liggéey bi nga xamante ni moom la moom di bëgg nekk mais quand am na loo xam ne waxoon nañ ko ci programme bi ci projet bi mu di un vice président euh, bi nga xamante ne war na bëgg nañ ko mu am ci réew mi est-ce que loolu lépp du indiwaat beneen coow boo xamante ne suñu àgg assemblée nationale itam sénégalais yu bari seen xel du du du dal ci loolee. non non loolu du indi benn coow loolu ay réforme la yu ñu war a préparer teg ko tey nekkuñu mm-hmm. mi ngi mm-hmm. woon ci biir projet bi. ñu mm-hmm. campagner ko daal di koy waxtaanee sénégalais yi jox ñu bopp. voilà léegi nag maintenant il faut que ñu def ko projet exécuter ko. Mhm. waaw lépp loo xam ne waxoon nañ ko daal mu nekk ci biir projet bi. Mhm. xam nañu am courage daal di koy def projet daal koy discuter ak mhm. sénégalais yi daal di koy implémenter mais dafa am temps. léegi nag ci temps bi nga xam ne moom lañ nekk nii. léegi euh, comme ñu bañ a rater départ bi. raté départ bi nag te man yaakaar naa ci vraiment duñ ko raté ah. Mhm. ndaxte ndaxte yi mu teg nii président Diomaye. man wax dëgg yàlla <laughs> donc dama. sa xel dal na ci maanaam. non vraiment dama kontaan. Mhm. daf dafa romb xel mu dal. démb bi ma toogee ba déglu discours bi. Mhm. di ko di di ko décortiquer di ko analyser. laa ne mais euh, déjà posture bi. déjà jël na rôle am. xam nga li ma la ñu ngi ko doon xas ci ci ci <laughs> élection yi ah. waaye waaye yaa ngi gis jël na rôlam mm-hmm. xam nga mi ngi ñëw mm-hmm. ah rôle boobu noonu mi ngi koy incarné xam nga mm-hmm. tey bi dal bi wax lu mun a dugg ci boppu sénégalais yi te kenn du ko lam-lamee ah on a besoin de ça pour apaiser la situation xam nga buñ ci raxee compétence rek ndaxte moom kenn kese du liggéey Ousmane Sonko moom kenn kese bu buggee sax moom kenn kese mënul liggéey réew mi. Mhm. ah ok moom d'accord dafa am ñu mu koy àndal. pour liggéey ko xam ni mu la. Mhm. ñooñu ñuy àndal. Mhm. nañ leen respecté. jox leen seen cër. ay doomu aadama lañ ñu jox leen la ca war jox leen ay jumtukaay jox leen budget contrôler leen ni leen bu leen luubal.

aussi man ma question revient tout tout tout le temps ci ci sur ça est-ce que danañ mën a je ne vais pas dire satisfaire quand même mais l'exigence des Sénégalais est-ce que danañ mën a sàmmante ak moom tout le temps quand même euh, xoolaale ñi nga xam ne ñoo di seen i alliés ci Diomaye président vous vous en faites partie je pense que vous êtes bien placé quand même euh, pour euh, pour pour analyser noonu ci biir ci gouvernement bi nan la ñuy jongale loolu lépp ba bañ am frustration déjà au sein de la coalition wala askan bi mer ci nomination yi nga xam ne ñoom ñooy am juste ñu yeexle foofu. gis nga frustration man dama ne dina am du ñàkk d'accord xam nga yaa ngi wax vingt ministres. vingt cinq à peu mhm. voilà coalition bi ñaata lañ. bëri nañ macha allah. waaw ah, d'accord ay cent cent et quelques d'accord membres ñoo nekk ci coalition bi coalition boobu noonu ña ca nekk dafa am ñu nekk seen ginnaaw aussi waxatuma la ak Pastef kese rek. Mhm. d'accord ña fa nekk kenn xamul nu mu toll. waaw mais kon bu ñuy fal kay d'accord du ñàkk mu am ay réticence mhm. mu am ay voilà mais dama ni loolu. dañ koy accordé. Mm-hmm. mu nekk ñu ne d'accord mënuñ jël ñëpp voilà après nit ki am xol accompagner projet bi ba nga xam ne ñu teg ko fa ak ñu ñàkk ko fa teg la yemale man de sama aqulaay taala laay waxee. Mm-hmm. ñu teg ma ak ñàkk ma teg j'accompagne le projet ba gis loo xam ni doyuma ci projet bi ma doog ko wax bu bu bu ñu demee noonu ci esprit boobu noonu. Mm-hmm. xam nga la. nañ ñu jox respect jox ñu suñu gëdd. xam nga donc man li may wax ci coalition bi nee naa rek benn affaire rek la nañ ñu consulter. nañu waxtaan ak ñun jox ñu suñu gëdd. d'accord pour ñu mun a accomp ñu am jumtukaay yi nga xam ne moo ñuy mun a permettre ñun ñu accompagner le projet. Mhm. parce que mun nañ ko accompagner ci pédagogie ah. rien que toog bi ma toog fi nii di wax maa ngi accompagner le projet. effectivement ah toog bi ma toog nii di wax ak sénégalais yi. Mhm. pour wax leen li nga xam ne moo nekk ci biir projet bi mais am na ñoo xam ne amuñ accessibilité boobu pour xam li nekk ci biir projet bi. am na xam ne mënuñ ko expliquer. Mhm. kon man am na rôle bu ma ci mën a jouer. Mhm. mais rôle boobu noonu duma ci xaar kenn. d'accord dama koy dama koy dem ma jouer ko. voilà bañ ci xaar nag nombal tànk wala ma ciy xaar leneen. léegi dama dem j'appelle le sénégalais xam nga la ñu bañ a teg pression. ñu bàyyi d'accord ñi nga xam ni ñoom la yàlla jox tey ah, ñoom ñu yelloo ko te am légitimité bi. Mm-hmm. ñu bàyyi leen ñoom ñu décider. Mm-hmm. jël ñooñu tamit ñu leen di ñaan bu ñuy jël. Mm-hmm. nañu tënku ci li nga xam ni moom la ñu waxoon sénégalais yi ba nga xam ni peuple bi dina ci gis boppam. loolu su amee rek. après bu amee ay réticence yu ndaw kii mer na yooyu. gis nga peuple bi moo koy moo koy gérer. boobu exemple tey su nekkoon ne euh, premier ministre Ousmane Sonko dafa proposé ñu jël Thierno Alassane Sall comme ministre jël que <laughs> dana dana dana dana jàll. waaw mais euh, Sall d'accord bu ñu ko jëlee comme ministre ci par rapport ak li nga xam ne moom mun na ko liggéey. Mm-hmm. ingénieur télécom la ñu ñu justifier ko. Mm-hmm. d'accord mais pourquoi pa mais am na yeneen ingénieur télécom. yoo xam ne ñu ngi fii ñu ngi fële ñu ngi fële donc ñoom dañu war a xool. Mhm. gis nga moo tax ma ne buñ ko suñ ko personnaliser rek dafay difficile. Mhm. suñ ko personnaliser rek parce que bu ñu limiter rek ci homme politique yi xam mhm. ñu limiter rek d'accord parce que tamit projet bi li koy doxal nekkul ci homme politique yi kese ah. ah te attention gis nga nekkul équipe bi rek mooy doxal projet bi ah ministre yi doxaluñ dara ñoom rek ah ah lii ñëw mi ngi ci kanama ah. ah donc dafa am dafa am ay point clés yoo xam ne dafa am ñoo xam ne dañu tënk système bi war a liggéey mhm. ah, ñooñu tamit ci lañ ci lañ bokk. moo tax lii commencement la rek moo tax lii nii signal la. Mhm. nañ jox signal sénégalais yi pour wan leen leen ñun de lañ leen waxoon ci lañ tënku. Mhm. bu boobaa sénégalais yi dañu am confiance rek daal di accepter nekk ci gannaaw. daal di leen topp. mais yaakaar naa ni nag loolu moom euh, dama dama ko yaakaar. <laughs> d'accord ah. euh, merci merci beaucoup euh, professeur kan nag <laughs> daanaka àgg nañ ci ci cappaandaw gi juste bàyyi la rek nga nga nga jeexal ak tàggatoog ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan it euh, ak yaakaar bi nga xamante ne am nga ko par rapport ak li nga xam ne jot naa xew gum yëpp avec le président Diomaye. man daal vraiment maa ngi maa ngi maa ngi kontaan. Mhm. waaw di wax ni xëy na yàlla dafa am lu mu namm ci suñu dëkk. Mhm. parce que lii di déroulé wu nii yëpp donc peut-être euh, kenn imaginé wu ko woon. Mhm. waaw buñ ci buñ ci amee tuuti njort. Mhm. xamuñu woon ni sax nii lay demee. Mhm. kon yàlla dugal na ci loxoom. effectivement waaye nag léegi dañu toll foo xam ne dama koy wax dañu nekkoon ci benn tunnel bu lëndëm ñu dem ba ci kanam ñu génn ci benn rond-point. ciel ouvert ba ñu génnee nag dafa am ñetti yoon mun nga dem droite. mun nga dem tout droit comme mun nga dem à léegi dañu war a tegu ci yoonu liggéey Sénégal. Mhm. yoonu liggéey Sénégal boobu nag kenn ku ci nekk indi ci contribution am ñu xam ne mhm. avantage la pour tous les mhm. gis nga man ma ànd ak diw wala ànduma ak diw. njëriñu Sénégal ah, dafa war a law ci ñëpp ci samay njaboot. ci samay mag ci samay rakk samay xarit. voilà kon bu ma gisee loo xam ne dafa war a dem. te ma am yaakaar ci projet bii nii. Mhm. niñ ko waxtaanee xeexee ko. Mhm. ba mu yegsi fii yàlla permettre que d'accord duo bi nga xam ni ah ñoom ñoo ko théoriser. Mhm. ah ñoom nekk fi Diomaye président Ousmane Sonko premier ministre. mu nekk benn duyo boo xam ni d'accord ñoom war nañ mu ne exécuter projet boobu noonu. man daal maa ngi wax maa ngi woo Sénégal yi yëpp nañu associé wu ci loolu. képp koo xam ne yaakaar nga ni mën nga ci indi contribution ñëwal. kon même même l'opposition tey su demoon duñ ne dañoo transhumé. non l'opposition xam nga. xam nga xam nga xam nga je parle pas de voilà mais en entre guillemets ñi xam ne ñoo bokk. waaw mais mais xam nga foofu la Sénégalais yi di juumee xam nga indi contribution taxul nga ñëw bokk ci parti. Mm-hmm. gis nga premier discours de président Diomaye bu ñu ko rappelé woo à Radisson wax na ko nee dina fexe ba opposition bi ñu jox leen seen gëdd pas ñu écraser leen opposition bi xam nga ñoom lan la ñuy xaar ci ñoom ah ñu indi une contribution constructive ci waxtaan bi nga xam ne lépp loo xam ne faay la ci projet bi parce que projet tamit projet la rek ah dina buñ koy exécuter peut-être xëy na manière bañ ko exécuter dina am ay faay wala tel et cetera na opposition bi daal di taxaw daal nañ ñu ay lii ngeen waxoon kat defu leen ko ñun ñu jubbanti. wala ñu ne ñu ah lii kat ngeen ngeen bugg a def nii. ñun yaakaar ne bu ngeen ko defee du dox. ñun de lii moo ci suñu xalaat ñun tamit ñu am maté euh, matériel bu day nii. Mhm. ñu mënu leen ñu mën a tenir compte ñoom ci seen i contribution mhm. bu ñu defee loolu rek man je pense que nii